bismillahi irrahmani irrahim qaala bnu maajata rahmatullahi aleyh xaddasanaa jubaaratu bnu lmugallis xaddasanaa hushaymun an ubaydillahi bni abi bakrin an anas bni malikin radiyallahu taala anhu qaal kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam laa yaxruju yowma alfitri xatta yatcama tamarat في رواية للترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهم أجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي Ibn Majah narrates From Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu said, The Prophet ﷺ would not go out on the day of Fitr until he had eaten some dates. And in the narration of Tirmidhi from Abdullah ibn Buraida, who narrated from his father that Rasulullah وسلم, would not leave on the day of Fitr until he ate, and he would not eat on the day of Adha until he prayed. So the sunnah for this day is to eat before one goes out to Eid al-Fitr prayer. And the sunnah during Eid al-Adha is to not eat until one finishes one's prayer.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 If you liked this video, please subscribe to our channel